mursali walhamdulilahi rabil alamin ñett yoon ëf ci ndox di ko raaya chaque jour junni nga am xanaa loolu doy na ah ma dolli yaa suqa bidu xam nga lu muy xeet boo xeebee ni mu téelam yor ki wen di laajal waa ji bi mu commencé si kar yaa suqa bidu mu koy jox bër bu seet junni mu ne moom yàgg na woon sëñ bi damaa xeeb junni bi ma ne ko yàq nga compte bi tëj nañ ko loolu boo koy vérifié boo nee xeeb rek mu tëj su ko bind ngay bind téeméer def ko ci ndox sangu ci naan ci jàpp ci ñëw julli ñaar rakk toog benn place sikkar ko junni yoon bu dee suba nga ko def balaa ngoon a jot ñu jox la junni bu bees tàq ku bëgg la des ci weer bi ñu la jox xaalis foo toll te xaalis booy am bu bees lay doon boo amee xaalis bu màggee saraxe ko xam nga looy def fukki fan yu njëkk ci weeru olof bis bu yàlla sàkk digga yoon sóortul xorachir junni yoon sallallahu ala muhammad junni yoon lépp lu dugg sa biir bi lu neex lay doon dañu ba lay doon te day leew te xaalis yu bees tàq nga yor lu ñu naan xoyom xoyom moom nga yor ne waa xëyum xëyum mooy xëyum xëyum na ngeen bàyyi loolu xel li may wax nii nag ay secret la yoo xamante ne dégg ko fële def ko taxul nga gis ko de man dañ maa branché ma branché loolu muy dox la ma waxoon waaja rek ne ko du sëriñ la mun naa ma ne ko tey laay xam ndax sa sëriñ ndax egg na ci secret xaalis wala eggu ci du nekk da ngay joxe secret xaalis conférence bii tey boo fi mun ta waxee luy joxe secret xaalis bii boo nga noppi bu waxati ci rajo yi muy indi ay mujj xarab bii doog ay cër yu kenn xamut ma ne ko waaye yow su du dong laa lay jox mujj nga xam nga dañu mujjee def dañoo mujjee jël sama enveloppe yi waroon def di ko maye ñu jël ko di ko jaay naan Serigne Maguette moo koy moo koy jaay cinq mille naa indi nañ leen ci ay enveloppe yoo ko jënd indi xanaa nga ne ko ci daara ji man leen def naa ko addiyee yenante bi sallallahu alayhi wa bii nag par quatre cent mille moo ko tax a man lu may wax xam naa lu tax man dañ maa branché li may wax ragaluma ko te ki ma branché mu ngi nii toog ba déggee ñu naan toog lu wér di turu xaalis amul wax na dëgg amul dañ lay jox ci tineel bi jox la courant nga ne duut nga laal mu ne la kër nga ne taxawaat waaw loolu la affaire bi loolu la de ismu jalaal ana Mohamed Mohamed benn Espagne neen damaa nekkee Espagne ku ma gis rek yaakaar ne war naa jël sama paaka bi rendi la eh, ah Mouhamed garaaw nga de ñu indil ma ko ma xool ko mu yàgg ma ne ko yow moo su ma soxlaa yónni saafara mu naan am na lu tax parce que dañ maa jox blanchiment te secret boobu noonu. sama waajur bu góor laa doon gis mu di ko def na nekk ci kër gi nekk ci ndigalam rek da ngay jékki-jékki rek sa aajo fa bu dee dox la da ngay jékki-jékki na waaw loolu de lu aaru kenn du wax ahamun saqakun la ñuy zikr fukki araf la ak benn araf bu njëkk bi lan la